axusubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmaanirahim alhamdulilahi rabilalamina wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin seydina muhammadin almakin waala alihi wa saxbihi ajmain mbokki M-Media Group nooru daaray ni ñoo ngi sant yàlla subhaanahu wa taala di julli ci yonentam boobu sallallahu alayhi wa sallam di leen niiw néew bi gën a sell te mooy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen siyaare di leen ndokkeel di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu nungul ñu suñu jaamu yàlla te jéggal ñu suñuy rëcc rëcc di leen ndokkeel te bu baax a baax rek di niiw ñëpp di ziyaare na ñëpp di rafetlu bu baax a baax liggéey bi ni nga xam ne bii noonu lay doxee yittewoo gi nga xam ne gii mbokk yi yittewoo nañ ko ko di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu dolli ñu cee jàppale bu baax a baax di jëy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallama di ci soññ sama bopp rek di ci soññ mboolem ñu yàlla defal tawfiix yi ñu nekk ci biir liggéey bi rek ñoo ngi sant ñëpp di leen gërëm wax dëgg yàlla ñoo ngi diglu ñëpp ci borom xam-xam yeeg ñi nga xam ne ñi dañuy digloog ak mbokk yi nga xam ne dañuy dugg ci biir dañu gën a leeral njàngale mi waaye itam di ñu gën a gindi di ñu teg ci ay yoon yoo xam ne yi ca la ñu war a mën a aw ba liggéey bi am ak cellange bu gën a am ak sellange bu baax a baax a baax yal nañ ci yàlla jël doole jàppale barke Seex Xadim kon xam naa tey dañu dikkaat ak yéen rek ci liggéey bi ci li aju ci wàllu laaj yi muy ñaari laaj yoo xam ne yi rot na fi te sang bi rotal ko fi muy Cheikh Salih Ndiaye ñu di ko ndokkeel di ko ziar bu baax a baax moom day laaj ci lu jëm ci wàllu ndox sa sawam gone goo xam ne gi gu ndaw la ab liir masalan maanaam day laaj ma xukumu bawli radii dañ ko naan ajma al fuqahaau ala najasati bawli sabii waxtalafu fi kayfiyati tadhirihi fa dahaba almalikiyatu ila xasli bawli radiati al unsa wa nadaxi bawli sabiyi alxulaam hada in lam yatanaawali radiu taaman xayra xalibi ummihi day laaj saam gone gu ndaw gi toll ci nàmp ak yooyu day laaj ndax sobe la wala kañ lay nekk sobe dañ ko naan gone gu ndaw moom saa bu tàmbalee di saw rek moom saw moom maanaam sobe la ndax ñuy jàngale fiq fi ñépp moom déggoon nañ ci ne gone moom am sawam sobe la moom amuñu ci genn wuute waaye fañ ca wuute kay mooy sawam gone googu ku mu ku mu saw masalan nan lañ koy laabale maanaam bu fekkee ne ci ngërëm imam Malik la dañu naan maanaam sawam gone bu sawee niñ koy raxase mooy bu dee gone gu jigéen la maanaam dañu koy raxas ak am ndox maanaam raxas ko la ñuy def raxas waaye bu dee gone gu góor la maanaam ne nañu dañ koy wis rek maanaam dañ koy wis am ndox rek maanaam foofu daal lañ ci amee wuute mooy bu dee maaliki moom dañ ne bu dee jigéen la bu dee bu sawee nañu raxas nañu ko raxas waaye bu dee góor la mën nañ ko wis am ndox rek bañ koo raxas ne na nag maanaam bañ a raxas bu dee góor la te fekk dañu koy wis rek maanaam bu fekkee ne ne gone gi lekk gut am ñoom nga xam ne dafay toll maanaam ci di nàmp rek nga xam ne am soow miyaam rek lay nàmp ne ne su booba la ñu koy wis kon daal loolu mooy la ca lañ ca wuute te ñi dundu ngiram imam Malik moom jàppe ne noonu lañ ko war a raxase su ko defee ne nag wa tanzifu tifli minal biraz awil bawli laa yanxudul wuduwa nee nag ki nga xam ne ki xale bu ndaw boobu da ko saw maanaam moo xam xale bu góor la wala bu jigéen nee na bu ko sawee maanaam raxas googu ñu koy raxas nee na maanaam bu fekkee ne ki ki mu saw daa fekkan mu jàpp nee na raxas googu mu koy raxas maanaam du firi jàppam moom maanaam du yàqam jàpp indama wajabal ixtisaalu minhum faqat ne na daal ci war mooy gone gu ndaw moom ku mu saw maanaam fekk da ngaa jàpp maanaam da nga koy raxas rek su fekkee ni saw moomu laal na sa yére wala say saw yaram wa haza mattafaqa alayhi al ulama loolu itam ne ne maanaam borom xam yëpp d'accord nañ ci ne maanaam nit ki bu ko gone sawee moo xam ci ay yéreem la wala ci yaramam la daal maanaam na raxas saw moomu rek waaye raxas googu mu koy raxas maanaam du yàq njàpp ma waaye itam nañu xam ne sawam gone moom ne ne bu tàmbalee di saw rek moom itam loolu sobe lay daal di doon beneen laajam bi ci topp day laaj xukumu zifaaf al urj maanaam day laaj maanaam muur bi nga xam ne bii dañu koy muur jigéen buñ ko mayee ngir muy dem di sëy dañ naan yusannu fi l islaami ishaaru zawaaji wa ilaanuhu ka darbi alayhi biddufuuf wal xinaa il mubaax xaala sallallahu alayhi wa sallam faslu ma bayna al xalaali wal xaraami addufu wa sawtu fi nikaax day laaj ne maanaam war googu nit ñi waral ñi ñu maye ngir ñu dem di sëy yi maanaam lan mooy àtte bi ci lislaam maanaam ndax loolu am na ci sëy ci lislaam waaw maanaam bu fekkee ne ci lislaam la dañ naan lislaam day sunnaan maanaam day yoonal ca bu ñu mayee jigéen gi may ko góor léegi maye googu ñu ko may maanaam nañu ko siiwal siiwal googu nag dañ koy defee ci lu mel ni ñu wut luñ koy màndargale ne jëmm yi maanaam seen diggante léegi lislaam daganal na ko ca nañ koy defee nag mooy li nga xam ne lii moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam digle woon ci nuñ koy siiwale mooy maanaam nañu wut lu mel ni ay tabala lu ñuy tëgg la maanaam dóor ko maanaam su ko defee loolu moom xeetu tabala yoo la yoo xam ne saa buñ ko mësee dóor rek maanaam dinañu am yëg-yëg am la lu xew su ko defee dinañ lijjanti loola ñu xam ne diw ak diw moom la ñu mayee wala ñu yëgle ko siiwal ko ci ay woy yoo xam ne yu dagal la nag yoo xam ne lislaam lungu na ko ba ku dégg woy yooyee xam ne loola xam na ak may la dañoo maye diw ak diw ndax mooy xaddis bi yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam ne ne liy taqale daal ci diggante góor ak jigéen gi li liy taqale araam ga ak dagan ga mooy ñu siiwal diggante ba ci buñ leen maye ba pare siiwal ko ci wut ay tabala noonu dóor ko ak kàddu yoo xam ne dañ koy wax ca ña nga xam ne ñi dañu dajale doon ay seere maanaam wax ay kàddu yoo xam ne muy daganal seen diggante kon waral googu ñuy waral jigéen gi naa day dem day dem sëy yi loolu lu am cosaan ci lislaam la tey luñ doon dund la waaye nag it lu mu mën a doon rek lislaam doon ko dund maanaam bu ñuy xool dañu gis ne jamono léegi ji maanaam dañu gis ne lu bare bari dañ ko ca yokk loo xam ne li bokku ca ba tax na dañ cay dugal yoo xam ne yi bokku ca loolu tax mu ne wa yaral maalikiyatu an al ishaada mandubun ilayhi inda laqati su ko defee neneen ñi nga xam ne ñi dañuy topp ngenam imam malik dañuy gis ne maanaam bu ñuy mayee nit ki muy góor ak jigéen gi maanaam mu am ay seere yoo xam ne dina leen dañ mën a seere ne ñaar ñi maye nañ leen maanaam ne ne moom ñoom dañu ko sopp ci jamono ji nga xam ne ji dañoo daje ngir di maye ñaar ñooñu kon daal maye googu ñuy maye jigéen ak góor di dagana diggante ba waaye tamit noonu ñu def di ko waral di ko muur muy dem di sëyi loolu lu cosaanu ci lislaam la ndax jamono yonte bi dañ ko doon def xam naa dinañu xool ba niñ ko doon defee daal nga xam ne nii lañ ko doon defee ci jamono yonente bi nga xam ne mooy dëppook lislaam loolu daal mooy li nga xam ne ni mooy solos ñu war koo xam jéem ko di ko doxalee noonu nga xam ne nii noonu la ko lislaam doon doxalee ba lépp loo xam ne di bokku ci rek maanaam loola ñu de mën koo mën a moytu ba di ko mën a boo bañ a boole ci ceetal yooyu nga xam ne yi moom lañu seetal waaye ceetal moom naka jëkk moom da doon am ci lislaam ci jamono yonente bi ak saxaaba yi ak ñi ci topp ñépp kon nañu xool ba xam ci jamono yooyu ñoom nan lañ doon ceetali ak lan la ci yonente bi digli sallallahu alayhi wa sallam kon ñu wax lan mooy ceetal ne ne tuuraful walimatu bi annaha ma yuaddu min altaami bi munasabati zawaaji wa sharaha al islaamu min baabil ilaani an zawaaji wal farax bihi min xibali zawjaini wal ahli wal aqaaribi ne ne ak ci dal ni ñu ko xame mooy mooy aw ñam woo xam ne bii dañu koy waajal mu dëppoo bés boobu nga xam ne bii moom la soxna si dem ca kër jëkkëram ñuy wut ay ñam yoo xam ne ay bernde lay doon ñu di ko wutal ñi nga xam ne ñi mooy jëmm yi nga xam ne yi ñoo fay teew nee na nag loolu maanaam lu lislaam sharia la maanaam lislaam nangu na ko yoonal na koy tamit ci teg ko ci buntab maanaam xam xamle ne ñaar ñi daal léegi seen diggante maanaam jëkkër ak jabar lañu maanaam lislaam daganal na seen diggante waaye tamit di ca wone ak mbégte goo xam ne gii ñaari yooyu ñaari wooy denc na yooyu dañ koy békk ndax ku ne xam na ne bés boobu kontaante lay doon ci ñaar ñooñu nga xam ne ñi ñoom ñoom la ñu may muy jëkkër ak jabar ji waaye tamit mbokk yépp itam dañ ciy bég waaye tamit seen woy jege ñaale muy ñañu dëkkal yépp it dañuy bég ci bés boobu kon loolu nga xam ne li moom lañ ci def ci wàllu bernde lu lislaam nungu la waaye tamit moom lislaam moom day wax xayrul umuri awsatuha daal maanaam nga xam ne lépp da koy teg ci ak diggu doomum nga xam ne lu mu la mën di digalite maanaam daal bu ca ak ëppal am bu ca ak yàq am su ca ak ëppal amee wala yàq am ca rek maanaam bu boobaa lislaam da koy daal di tere dootu ko bëgg wa takriman liman xadara ne ne it bernde yooyu ñuy def ci ceetal googu itam lislaam nungu na ko ngir terale ko ña nga xam ne ñi dañuy teew ca bésub ceet googee way juuso amaluha inda laqadi aw baadoho ne ne bernde yooyu ñu defee itam lislaam maye na maanaam jamono yi ñu koy takk noonu maanaam ñu def bernde yooyu def jox ko nit ña waaye tamit lislaam may na bu ñu ko takkee bu ñu takkee sëy ba ba noppi ba nga xam ne bi dem na këram sëy ñu def bernde yooyu bu ko defee da ngay daal di gis ne kon gis nga bernde yooyu ñuy wax maanaam xañ na defe ñu koy defee léegi ci ëpp gu muy ëpp goo xam ne gii day àdduna lool waaye itam dem ba yàq ka bari ja loolu mooy tax ñu koy teree waaye terewut gis nga ko nii lislaam nangu na ko wa raxaba al fuqahaa fil walimati wa xaalu bi istihbaabiha ne ne borom ñi jàngale fiqa ñëpp ne booy xool dañoo xemem lu mu lool maanaam dañoo dañuy soññ ci maanaam ne nit ki bu ñu takkantee ba sëy maanaam nañu def ceet googu ndax ñoom lañ ci wax sax mooy ñoom dañ ko sopp lañu wax kon gis nga ko wa kullu zalika li subutiha an nabii bil xawli wal fi'li li anna nabiya lam yuskara anhu annahu taraka ne ne fuqaha yi muy ñi jàngale fiqh muy boroom xam-xam yi lislaam yi xemam googu ñuy xemam loo ne na ñu def ay ceet ne ne loolu lépp ne ne dafa doon lu sax loo xam ne lii moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko doon def ci maanaam di ko wax maanaam nan nañuy ceetal waaye itam da ko doon def ñuy gis ñuy gis ne moom mii kët ku mu mayawaa rek maanaam kooka dem na sëy ñu defal ko ak ceet koo xam ne gii def nañ ci ay benn ak i teraanga yu bare bi yoo xam ne yi nit ña dañ koy mën a terloo tey ne ne amul kenn koo xam ne kii mën naa wax ci ne mën naa wax ne yonente bi may na nit maanaam te defalu ko ak ceet kon lañ ca war a xam rek mooy dawabitul ursi al islaam yi bu fekkee ni dañuy séetal te ba bëgg mu dëppook lislaam maanaam lislaam dalay tegal ne la yii daal kuy séetal maanaam ca nga war a dox su ko defee mu dëppook na nga xam ne nii moom la ko yonente bi doon defee sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci yooyu nga xam ne yi dañ caa war a tënku bu ñuy séetal muy atazayunul mun mundabit fala yajuzu kashful awraati wa tajan wa tatajannabul urus kashfa ma kashfa mafatiniha amama rijali wa raqsu amamahum wa zahab ilal coiffeur in kana rajulan ne ne bokk na ci lu ñu may nit ki bu fekkee ne day nekk ci céet mu tënku ca ngir céet ga dëppook lislaam mooy maanaam mu defaru maanaam mu wut defar yaramam wut ay yére yu rafet sol ko ci col goo xam ne gii gu tënku lay doon nga xam ne gii ci lislaam lañ koy natt ba mu dëppook col gi nga xam ne gii moom la nit war a sol rawatina bu dee jigéen ne kon du ñu may mukk nag seet bi maanaam muy col col goo xam ne gii maanaam ay awraam day feeñ wala muy netaal ay awraam waaye tamit ne ne moom seet bi na moytu bépp lépp loo xam ne lii wërta feeñ ci aw yaramam maanaam mu koy feeñal ci bésat ci googu ci kanam góor ñi waaye tamit moom seet bi na moytu ay góor teew ca ciit ga mu defaru ba ñëw dugg ci seen biir maanaam di fecc ci seen biir loolu lislaam da koy tere waaye tamit même dem ci kuy defar kawar maanaam kuy defar yooyu ñu leen di defaral ne ne bu dee góor a nekk ca place ba di ko defar dañuy tere seet boobu maanaam muy dem ci béréb boobu ñu di ko ko defaral bu ko defee gis nga kon point boobu gis nga ko bu dee ci wàllu defaru gi la gis nga boo bëggee mu dëppoo ak lislaam da ngay wut sa yére yu yiw yoo xam ne yi soo ko solee lépp loo xam ne lii aw awra la rek maanaam yére yooyu da koy muur waaye tamit dem di jaxasoo góor ñi itam wax dëgg yàlla ne ci seen biir di fecc moom seet bi loolu lislaam da koy tere waaye tamit dem ci coiffeur boo xam ne bii maanaam góor la mu koy defaral aw yaramam it loola su boobaa lislaam da koy nungu da koy bañ bu boobaa dootu doon céet goo xam ne gi ku dëppoo ak lislaam la bokk na ci beneen tomb boo xam ne bii war nañ ca tënk bu dee ci wàllu céet gi la mooy al ibtihaadu al tabziri wal israf yi gis nga ne ne bu nu bëggee bundee seetal seet ga céet ga dëppoo ak lislaam te tënko ci lislaam mooy lépp luñ ca mën di def ci ay berne maanaam na yem te buñ ko ëppal waaye itam buñ ko yàq ndax lislaam moom lépp loo xam ne li dafa ëpp rek wala ma doon ak yàq su boobaa moom da koy daal di tere te su boobaa soo ci dugalee ak ëppal wala ak yàq su boobaa kon céet ga day daal di wuute céet goo xam ne gii lislaam nungu na ko nee na it wala yasixu lil urusi tarku salaati fi yawmi ursiha maxaafata izalatil masaaxiq aw zinati muy lu am solo loo xam ne dañ ko seetlu ci ne ki nga xam ne kii ëpp siir la ndeysaan dañuy gis ne maanaam bés boobu dajay sàggane ak jaamu yàlla lool rawatina ak julli loo tax mu ne seet bi moom duñ ko may bés boobu nga xam ne bii bésëb seetam la maanaam muy ñàkk a julli maanaam muy bàyyi ak julli ngir ragala dindi defaru boobu nga xam ne bii moom lay defaru ngir bu dee jàpp ak yooyu yooye di yàqu kon gis nga dañuy daal di gis ne loolu yi tamit wax dëgg gis nañ ne moom ci seet yu bare bare bari moom buñ doon julli sax nag te ñi ci ëpp sax nag dañ tudd julli far benn waaye rawatina buñ nekkee ci seen bésab seet boobu moom bés boobu moom moom luñ ci laal am ndox fenn naa dañuy jàpp xalaatuñu ko sax kon loolu yi tamit bu ko seet defee day def loo xam ne li maanaam def na loo xam ne lii wuute na ak lislaam waaye tamit bokk na ca lu ñu seetlu muy lislaam li ko tere ni ci ceen mooy adamu wujudi cheyin min al muharramati wal munkaraati kal ixtilaati bayna nisaayi war rijaal nee na itam ab seet ak ceet bu ñu bëggee mu dëpp ak lislaam nañu góorgóorlu ba lépp loo xam ne li lu araam la lu lislaam ñu nguwut buñ ko fa gis waaye bu ko ndaw si def te dañu daal di gis ne kon seet yu baree bare ci suñu jamono ji bu ñuy doon ay seet da nga gis ne dañuy yokk seen kawar ga dañuy yokk seen weya dañuy yokk seen xef ya maanaam yu baree bari daal yoo xam ne lislaam tere na leen ko dañu gis ne dañ koy def ci bésab ceet boobu kon ki nga xam ne kii ab seet la te bëgg daal ak ceetam dëpp ak lislaam lépp loo xam ne lii lislaam tere na ko bés boobee da ko caa war a gën a moytu ba du ko def waaye fi mu ne dañuy daal di gis ne seet yi ci ëpp ci li ñuy gis moom seen bésub seet boobu bu ñëwee loolu lislaam tere lépp dañu koy tere dañuy dem yokk seen kawar yokk seeni we yokk seeni xef di col col goo xam ne gi wax dëgg yàlla seen awra yi na mu war a muuroo dëgg dëgg duna muura su ko defee nag su boobaa loola lislaam loola la lislaam di tere waaye bépp teraanga boo xam ne bi def nañ ko ja ak gépp col goo xam ne gi dëppoo na ak lislaam seet ba di ko sol su boobaa ceet googu lislaam nangu na ko maye na ko waaye seytaane moom daanaka dañuy gàllankoor ci yu bare bari yoo xam ne lislaam may nañu ko ni ko nu war koo mën a def waaye dañ dut dëpp dañ dut tënku ci ni nga xam ne ni moom lañu ko lislaam digalee ba tax na su boobaa def googee ñu koy def waaw yu bari ñu di ko ca teree ñu defe ndax dara du fekk na dafa wuteeg lislaam rek waaye buñ ko teganti lislaam maanaam yooyu yëpp yuñ ñu may la yoo xam ni mën nañ koy def ngir gis na nam ko waxoon fee noonu la lislaam moom may nañu def ak ceet def ci ay bernde itam may nañu tamit séet bi muy dem di defar aw yaram di solo waaye nag ñu fexe ba lépp dëppoog lislaam jëf yooyu yëpp nag dëppoog lislaam moom danoo gis ne maanaam moo jafe lool lool ci ni nu koy defee kon xam naa yal na yàlla doole defal tawfiq di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doole ñoo dimbali gën ñoo jàppale ci liggéey bu baax a baax ñoo ngi siyaare mbokkam bu baax a baax a baax di siyaare ñëpp nag soxna yi ak gaa yu baax yëpp ci biir yal na yàlla doole defal tawfiq di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf.